ñun suñu programme dañu jàpp ni réew mi euh, jaxasoo na trop. Mm. dañ ko articuler autour de cinq points. ok ndax euh, bokk na ci ñun li ñu gëm mooy du ñu wax lu narul. du wax lu ngeen narul lu ñu narul du ñu wax lu ñu dul def du ñu wax lu ñu xamul aussi. Mm-hmm. du ñu wax lu ñu xamul. alors euh, man jàpp naa ni république du Sénégal moo am mais république sénégalaise amul. Mm. une république sénégalaise man gëm naa ni amul. Mhm. mais la république du Sénégal nag am na moom. Mhm. alors <coughs> y a man ma gis ni Sénégal daanaka juróom-ñetti nit rek ñoo fi dëkk. Mhm. huit personnes donc ñoo fi dëkk. koo fi gis muy dox li ëpp solo ci doomu aadama muy pas-pas ci juróom-ñett yi rek la tegtalu les religions traditionnelles. suñu mbokku bois sacré beeg ñi ñooy kenn ki. suñu mbokku jàngu bi mhm. muy ñaar keneen koo fi gis ci association islamique la bokk mhm. moom la ñuy wax ibaadu mhm. rahmaani wala tijaan la wala xaadir la wala murit la wala laayeen la wala mu bokk ci les associations non déclarées muy franc-maçon ñii ñoo seq Sénégal huit yi huit yooyu nag laa gëm ni dañoo war a toog autour d'une table ñun buñ jotee ci réew mi ñu toog ñu taxawal loo xam ne réellement ñoo ko moom parce que en définitive en 59 bi ñu indil suñu constitution waxuma la sax ñu plaqué ko de ay sénégalais jël ñu ne ñu xool leen ci constitution bu France ngeen bind ko taxawal ko taxawal seen institution li ngeen d' li ngeen d' accordul et loolu amul France lañ ko bindee ay tubaab bind ko ñëw nii lii ngeen di dox. xam nga loolu euh, waxuma kii waaye aw saaga mënu ko weesu. Mm-hmm. ci réew moo xam dañuy wax ni ay kàngam dañ fa nekk. ay nit ñu am démb ay nit ñu am taxawaay ay boroomi xam-xam mhm. ay nit ñu am euh, dayo ba noppi fa ngeen di jaar sax mënu leen ko rëddal seen bopp c'est extrêmement grave boo demee par exemple ci préambule constitution bi ñu ñuy wax ni le peuple sénégalais souverain affirme son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de maa la wax li Ah ça ce sont des textes ah, généraux waaw non c'est-à-dire lo mais mais looloo tax mu graw ces textes généraux laal constitution laa la wax mooy la charte fondamentale de ce pays là dëkk bu nekk concerne sénégalais yi mm-hmm. mm-hmm. man je pense que ni la déclaration boobu ñu defee référence ban lan la c'est une déclaration boo xam ne fan lañ ko defee woon ci ban contexte lañ ko defee ci problème boo xam ne ça ne concerne aucunement les sénégalais mm-hmm. ça ne concerne aucunement les sénégalais loolu bi ñu koy def en 1789 13 ans avant il y a eu une déclaration bu am fii ci Sénégal la révolution d'Amga ñoom Thierno Souleymane Ba pourquoi ñu référence loolu ci constitution bi mm-hmm. parce que du sénégalais yi ñoo ko tëgg ñoo ko bindal seen bopp du sénégalais yi ñoo xàllal seen bopp alors loolu dama gis ni kon loolu mooy la première chose à faire la deuxième chose à faire gis nga réew mi nañu wax waxtaan te te te te waxante dëgg xoolante ji bët def suñu póotum bopp li ñuy wax ci presse bi moo valable ci askan wi aussi dama gis ni li fi gën a valable te gën fee valable kilifa wax nañu ko dégguñu ko bàyyiwuñu ko xel mais danañ dem ba daanu ci miir bi muy sëñ Cheikh Tidiane Sy Al mm-hmm. réew mi nañu toog waxtaane wat ko ndax buñ ko sangul ci ay jikko non danañ ko sang ci dara te loolu xam nga lu ko weral mooy ñu taxawal tabaxaat sénégalais bu bees ñi ma fi gis ñuy dox ci réew mi du ñoom ñooy defar réew mi mm-hmm. njariñ loo fekkee njëriñ loo fekkee. erreur olof la boobu doxul yaatu na de pourtant yaatu na yaatu na yaatu na njëriñ loo fekkee loolu naka la mën a nekke njariñ li war nañ mën ñun tegoo coono bi suñuy doom noppalu. am déet xoolal ce qui est en train de suñu doom yi laa la wax chiffre bi doyen wax léegi nii y a combien de sénégalais actuellement ñoo des ci biir géej yi. combien de sénégalais ñoo des ci désert bi. Mhm. combien de sénégalais desuñu ci géej gi desuñu ci désert bi mais ñoo ngi ci frontière yi ñu leen di toroxal laa wax. ñu leen di toroxal. Mhm. Mhm. ndax ñàkk espoir. ndax ñàkk yaakaar ba mu àttan ak gàddaay yi réew te mu leen leen seen bakkan mën na ci des. kon il faudrait que ñu tabaxaat sénégalais boo xam ne ñun ñëpp xam-xam am na ci réew mi ñu toog waxtaanee ci la mu sénégalais sis ñii dem jàng ci franco arabe yi. ñiy jóg dem dem dem jàngi ci daara yi ñiy def euh, circuit classique bi bu ñu dajee lenn rek la ñu d'accord mooy duñu d'accord ci ñu bëgg construire une une une une nation bu pérenne. mais absolument ah, parce que bokkuñu ay référence bokkuñu lu ñu xam bokkuñu lu ñu tegtaloo. bokkuñu lu ñu ñaan dëgg la. te ñoo bokk réew mi mënuñu koo séddoo. loolu dañ ciy taxaw. Mm-hmm. dajale ñi ma la wax yépp boroom xam-xam ñu taxaw xam-xam bu ko nos ak nu ñu koy defee ci nit ñi moom mënta ki ñu préparer en fait des générations futures beneen bi ci des mooy gis nga réew mi. man dama ci am sax wax dëgg yàlla njàqare fi mu nekk nii stress bi dana gën a yokk muy problème mu <coughs> faju suñu wàllu santé nit ñi d'abord am nañ benn problème ci boo feebaree est-ce que man mën na maa dem hôpital y a un rapport récent bu génn y a moins de deux mois à peu près bu banque mondiale buy wane ni sénégalais yi y a 54 pour cent des sénégalais yoo xam si ci ñoo ngi ci précarité man gëm naa ni sax rapport boobu euh, ragal naa ni euh, ñi nekk ci taux boobu ëpp na loolu. Mm-hmm. alors loolu tegtale na ko ni sénégalais yi ñi seen loxo jotul seen ginnaaw bari nañu trop. waaw waaw n'est-ce pas. alors nit ñi bu ñu feebaree d'abord li ñu njëkk wax mooy ni est que bu ma demee lañ ma fay jox. am na ñoo xam problème mu ticket sax dañuy koy am pour jënd ko te soo ko amul fi mu ne duñu la jël en charge mm-hmm, mm-hmm. waaye léegi loolu pour lan te pourtant ñoom ay sénégalais lañu soins yi ñu soxla duñu leen ko jox parce que peut-être amuñu xaalis. Mhm. léegi ana état lan la ñuy doyee lan la ñuy doyee état pendant ce temps alal réew mi am na alal mais ñoo ngi koy def ci président bu jugoon y a une cinquantaine de voitures war koo topp la ca nekk ci fonction budget de fonctionnement kenn xamuñu toll. ñu def seen bambula jël seen i mallette def ci di compal ku ni nii ñu compal la ku dang lammañ ñu compal la ku ni nii ñu compal la. alors que pourtant am na feneen fu ñu ko mën a def loolu dafay deñ ci réew mi sama benn xarit daf ma netti loo xam ne lu tiis la. Euh, sëñ Camara lu tiis lu metti euh, il est de Thiès d'ailleurs dama dem di jaale ji benn kilifa bu fa bu fa bu fa bu fa bu fa bu fa bu fa nekk way mm. non Thiès mu desul def dara ci réew mi tey de Thiès Thiès Thiès mm. moom loolu loolu mm. ah ah non ah, attention nag attention attention nag Thiès moom <laughs> Thiès moom mooy Thiès Thiès moom ko damay jaale si dama bëgg ñu ànd mu ni ma man de dama am ni dëj aussi man ko may man waxoo ma loolu mu ni ma noo dama doon bañ déranger la te xam naa ci euh, yitte yi nga nekk alors bi ma jógee foofu ma dem jaale ji ko mu ni ma dama xëy suba ñu woo ma sama téléphone mais julli ma noppi décroché ñun ma sa mag bi dafa daanu feebar nee na ma taal sama oto dem jëli ko yóbbu ko ci première structure sanitaire bi ma njëkk àgg ñu ni ma fii amul oxygène am feneen fu ñu ma référé ma daw foofu ñun ma oxygène amu fi nee na ma ñu demoon hôpital régional ma dem hôpital régional ñu oxygène amu fi nee na ma laa toogee di ko xool mu wéqu ci oto bi ba sedd guy. hôpitalu Thiès. oui hôpital régional bu Thiès. léegi sëñ bi xoolal ma loolu te moom pourtant mën na fay mais amul oxygène ba noonu la magam bi deewee ñu bëgg ma wax ni ma loolu réew mu sérieux la non du tout am na feebar yoo xam ne si Ibrahima ku mu dal ci réew mi. da ngay dee ou bien dañ lay defal évacuation sanitaire c'est pas sérieux te pourtant fi ñu la koy defal am na ci réew yoo xam ni seeni docteur fii lañ leen tàggate fii lañ leen formé mm-hmm. kon nga xam ne xam-xam bi am na fi lan moo fi manqué plateau technique bi moyens yi maa ngi ciy dégg sànq nii rek benn ci euh, kër docteur ku ci wax ci hôpital sa Pouye bi di wane ni da ngay jóg ñëw nit ku nekk ci urgence mais dañ lay jox maanaam benn rendez boo xam ne yow balaa ak sax da ngay dee fi mu nekk. noonu danañ koy defee. yegg na ci sax na ci Facebook beeg kii réseaux sociaux yi di waxtaan di. bon nag lañ léegi loolu soxna si loolu dafa war a continuer. mënul continuer loolu dafa mën a continuer. autorité de bi. mais il faudrait ci ñuy def ci ay moyens aussi ñoom dégg naa ne sax ñu interroger est-ce que moyens yi ñuy wax yëpp def nañ ko ci bi ci santé bi la dugg. peut-être ci ay séminaire lay dem peut-être peut-être peut-être peut-être mais vraiment askan wi ñoom gisuñu mhm. loolu aussi beneen point la ci ñu ci suñu mbir justice bu équitable. Mhm. pour tous une justice pour tous. gis nga Sénégal li fi xew Sénégal dong la xew wala boog réew yi mel ni moom. Mhm. man Sénégal rek lay dégg nit soit nga tooñ ko wala mu tooñ la ndax nit lay juum mu ne la daan la duma te sama loxo du la laal. gis nga loolu ce n'est sérieux dans un pays. ce n'est pas sérieux ci benn nation nit ñoo xam ni dañoo bokk dund bokk dee bokk lépp. Mhm. dinaa la duma te sama loxo du la laal. ci Sénégal ngay gis ni nit génn fii donc lee la dara rek war la ko sur le champ toroxal la ci kanamu nit te kenn du la ko fajal. Mhm. lan la nu état di day jariñ kon moo ñu war a protéger ñu ñëpp. Mhm. kumba am ndey kumba amul ndey dafa war a jeex ci réew mi ak koo mën a doon. mooy dëgg que nga ànd ak état euh, bon plutôt euh, mouvance présidentielle que nga ñàkk ànd ak moom ñoo maase yem ci moom. man je pense que ni war na am ay réformes yu ñu ci def yu am solo yoo xam ne même le président de la république war nañ ubbi brèche yu am na yoo xam ne su ko tegee dañ koy déchoir. dëgg la absolument. impeachment il le faut. xam nga pourquoi parce que lu mu moom. moomu ko de ko ko dénk. sénégalais yi ñoo daje lu mu fi mën a doon rek ci fànn xam-xam bu ne am na ñu la ko ëppale. mais terewul yàlla terale loolu ni la nekkal ci service u askan bi. kon je pense que dafa ni fal leen ma. xam nga loolu dafay gën a dafay gën a renforcer sax responsabilité bi yaa koy yaa koy yëkkati alors je pense que ni ci condition yooyu war nañ mën a ubbi bunt boobu pour bu fekkente ni dafa bëgg abuser ci liñ ko dénk ñu ne ko sawaay demal toog fee ci xajal des dégence le font te loolu dangay gis ni mais malheureusement ñun réew mi euh, dama xamul wolof moo mënta saytu yenn yi ba niñ ko war a waxee duñ ko waxee mais déjà bu nee nguur rek lañu la fii nguur amatu fi. nguur amatu fi de. lii du nguur. askan wi ñoom moom euh, seen xëy na serviteur wala seen mbindaan la ñuy jël. koo xam ne dafay nekk au service de l' état nekk au service du peuple pour liggéeyal leen ci seen i bëgg-bëgg ak seen i seen seen i seen mais malheureusement loolu gis nañ ni dafay jafe. Mhm. benn bi ci des nag mooy ni société de consommation bi ñu nekk ñu rompre ko véritablement dem ci société de production ñun consommer rek la ñuy def te lu mu mën a doon dañuy dem jéggaani ko. loolu dafa war a dëj war nañu def fexe ba sunu càmm gi sunu napp gi sunu mbay mi ak surtout artisanat bi ñu fexe ba la consommé consommé sénégalais mu doon lu réel bañ a doon ay théorie kese. Mhm. askan mënul jóg dem ci kanam ba noppi te li muy lekk ak li muy naan sax daf koy. fas yéene jéggaani ba mhm. noppi dénk ko ñoo xam ne si quasiment euh, bokkuñu ci moom. Mhm. man je pense que ñun ñëpp ci précarité boobu lañu nekk. ñun cinq act action yi moom mooy doon suñuy euh, priorité parce que xam na ni kenn mënta defandoo lépp. su ko defee nag renforcer l' état de droit parce que état moom bu ñu xafee ba mu affaiblir wala mu affaissé wu ñun ñëpp ay ñun ñëppay sànq il faudrait que ñu renforcer l' état de droit mhm. il faudrait que ñu euh, renforcer l' ci boppam aussi mhm. ak ay wanqaasam mhm. ba réew mi stabilité ak dal ak jàmm gi fi nekk gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a yàgg waaye nag ci kaw ñëpp ñu yemale leen amul kenn koy doon Mouhamadou keneen ki doon Mamadou